أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taaliba yi gannaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di sant Serigne Touba radiallahu anhu di ñaanal Serigne Mountakha ayyadahullah wa nasara wa aafiya sa wara ak njabalu Serigne Touba gépp mu mel ni ñu ngi ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 ñu nekk ci wàccaayu màggalu Touba amoon nag jotaay yoo xam nañ ko tuddee 18 safar 18 kàngam mooy bis bu yàlla sàkk ñuy ànd ak kenn ci boroom xam-xam yi. ñu ñuy fàttali jaar-jaari sëriñ bi akub liggéeyam moo xam aw dundinam la wala dëkk yi mu sañc wala lim bind ci yonent bi sallallahu alayhi ci tàgg ko ak julli ko ak sant boromam subhanahu wa taala tey na ñu nekk fii ci Daaru Salaam war a ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke moom si Alhaji Mbacke ñu war waxtaan ci Daaru Salaam ci boppam nga xam ne mooy dëkk bi Serigne Touba njëkk am ci kaw suuf ci lu ñu xam doonu dëkk bu mu fonk lool itti woo woon ko lool joxoon ko wàccuwaay loolu itam ba ni mu fi nekkee di fi jógee di dem fecca Touba mu mel ni nag dañ koy tënk ci ñett rek ci waxtaan wi bi njëkk mooy li sabab sëñ bi sanc Daaru Salaam mooy li ko sabab ñaareel mooy sëñ Tuubaa ci boppam Daaru Salaam ci boppam ay ngëneelam ak ay jagleem waaye dem jëmmi sëñ Tuubaa ci boppam joxoon na lool wàccuwaay dëkk bi kon ñett yooyu lañ bëgg sëriñ Cheikh ñu ànd ci ak moom mu indi ci ay leeral ngir ñu man koo waajale màggal gi wasalaama min asheytaan irajim bismillahi arrahmaan arrahim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi ànd di topp site internet bi tudd Salaami Salaami TV ak eh, ak mboolem banqaas yi aju ci moom ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare di jiital ci nuyu boobu ak ziar ba Cheikh mun taxa mi nga xam ni mooy xalifa Sëriñ Touba radiyallahu anhu di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te yokk ak wéram loolu la ñuy ñaanal tamit kilifa dëkk bi ñu nekk di daaru salaam ma cheikh abou mouhamad mi nga xam ni mooy xalifa cheikh mouhamadul mamoun mbakke di siyaare ñëpp ñi nga xam ne ñooy dégg suñu kàddu comme ni ko suñ tamsir waxee léegi rek euh, tey jii ñu dajee fii ngir bëgg a waxtaane lenn ci lu aju ci dëkk bi ñu nekk di daaru salaam ci lenn ci ay jagleem ak lenn ci li sabab sëñ bi sancu sanc ko ak wàccuwaay bi nga xam ne amoon na ko ci kanam Serigne Touba radiyallahu anhum dëkk bi di Daaru Salaam euh, comme ni nga ko Tamsir suñu Tamsir waxee léegi rek moom la Serigne Touba njëkk am ci dëkk bu moomal boppam euh, mi ngi ko sanc ci atum 1304 ci atum wolof ci gàddaay gi ak sañ ci tolloog 1886 ci atum tubaab am na nañu wax sax ni huit safar la talaata la toll toll ak 18 safar ci màggal gi mooy bis bi ñoo xam ne ci la ñuy màggal loolu wér na waa ñu bari gëstu yu indi nañ ni 18 safar la topp tombe woon talaata ci atum 1304 bu mu wax la ci ci gàddaay gi kon loolu jaadu na suñ joxee ba toll ci 18 safar di ko waajal ñu waxtaaneen dëkk bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa njëkk a moom moomal ko boppam ci ak euh, ci kilifteef boppam tam dëppoo tam dëppoo nag ak date bi nga xam ne moom la ñu waxta ak bis bi nga xam ne ci lañ dëgmal euh, bu ñu gisee Serigne Touba ci am ci siiraam ci jaar-jaaram ci sëriñ bi ci euh, gis nañ ni sëriñ bi radiyallahu anhu yitteem yëpp moo nekkoon jëmmi suñu borom ak yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla rek ak yonente bi ci tam teeloon na xaw a ràññiku lool nag ci nekk waajuram Cheikh Mame Mame moo Anta Sali Euh, ràññu ko lool ci bi fi suñ Maam Mor nekk waaye nag ci mujjug maam moo ci waajuram ci bi nga xam ne fi waajuram génn na mu tàmbulee woote wootem wootem boobu euh, wane ni suñu borom da koo jox ndigal ci anamu yar keneen gu bokkut ak gi nga xam ne moom lañ miine woon ci jamono yooya ndax jamono yooyu li ñu miinoon mooy tërallu dem ñibbi nekkaat sa yëtu sa bopp waaye nag suñu borom xamal ko ni ko méthode boobu de am na beneen bu ko gën ci la dajale woon taalibe wax leen li nga xam ni wax wu si woowu koo xam ni jàng dong ko fa indi mën naa mën naa dem waaye koo xam nag li ma bëgg ci def ci moom moo ko mën na bëgg na mën naa euh, mën na ko xaar na ñëw ñu ànd am ñenn ñi dem ñenn ñu toog comme ni ko ni ko ni ko ni ko histoire nettalee ñu mujj ko moom seex moom moom suñ Maam Mor Anta Sali mujj googu nag sëñ bi xaw na caa jàngoonte la ak ay jafe-jafe yu bari bi nga xamee ne sëñ bi dafa génn Maam Mor Anta Sali génn àdduna ca euh, Mbàkke Kajoor te mag ña doon ko conseil mu ànd ak ñu denc Maam Mor Anta Sali ba noppi ñu koy conseil pour mu ñëw ànd ak Lat Joor buur ba féete ko ci yeneen fi féete fenn fu mu ko war a féete te sëñ bi joxe woon ngànt ca loola xëy na ci ak xataayam ak dëgmal gum dëgmal suñu borom xam ne loolu du ko war a du ko mën a taxawee tax na ñenn ñi jàpp ni moom sëriñ bi euh, xaw naa des am na lu des ci moom yooyu yëpp fenn taxoon taxoon na am euh, ñu koy ñu koy dëkkale fenn di ko di ko di ko euh, féetale wax ay kàddoog ay baar yoo xam ne nii tax na sëriñ bi ak ñun àndoon ak moom xawuñu woon a yaatu genn yaatu goo foofu am ñu koy xam ne sax dem nañ ba di ko jaxase ak euh, tubaab bi ci wax na ni sëñ bi daa am beneen jubluwaay bu mu am bu bokkut ak bi nga xam ni moom la fi waajuram nekke woon loolu tax na sëñ bi xawoon a xat tuuti ca nekkin wa foofu noonu ca Mbàkke donte nag am na ñoo xam ne ñoom dégg gi ñu dégg sëñ bi ak xam gi ko xamoon ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg lu baax moom taxoon na ñuy ñëw di jaayante ak moom di ko dëgmal si foo nekk nii ñi dafa bàyyi ko di ñëw ci moom ñenn ñi di barkeelu ci moom ñenn ñi di ñëw di di ko nemmi ko ak di ñëw di toog ci ba jataayam ngir mu leen di laabira di leen yar ci anam gi nga xam ni moom lañ gis sëñ bi di ko doxee. loolu nag tax na sëñ bi gis nii nag foofu noonu mu nekk ca Mbàkke Kajoor dafay jógee ñëwaat Mbàkke Bawal. ci la jóge woon ñëwaat Mbacke Bawol fii nga xam ni fi la waajuram nekkoon sama Mor Anta Sali bi mu fi jógee ñëwaat Mbacke Mbacke Bawol taxu teewoon tamit nit ña ñu ngi koy dëgmal si te suuf soo mu nekkoon nag nekkul moomeel goo xam ne moo ko moomal boppam ndax ay waajuram ñoo fa moomoon daanaka ak ñeneen ñoo xam ne ay kilifaam lañ yaatu ga mu fa war a yaatu ak ubbiku ga mu fa war a ubbi ko ak mu fa bëgg a yaree ak taalibe yi dem mel ni jafe woon na lool mu mën koo defee noonu ah, tax na nag sëriñ bi daal di jógewaat Mbacke wa ci ndigalul boroomam ñëw fii ci Daaru Salaam sancal ko ginnaaw bi mu dem sanc Touba. bokk na ci kon nag li nga xam ni moo sabab dëgg-dëgg comme ni nga ko waxee léegi euh, sëriñ bi sanc dëkk bi mooy mu amal boppam suuf soo xam ni dafay mën a jaamu yàlla ak di fa yar moom jaamu yàlla la fay def ak di fa di fa yar njaboot gi loolu mi ngi gën a siiwee ci ginnaaw bi ma xamee ne sëñ bi wax na ni euh, suñ borom jox na ko ndigal ci mu yar njaboot gi ci himma tamit leen a waar ci jàng kese comme ni ma ko waxoon léegi rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat suñ bi waxoon ne suñu boroom da ko wax ni ko yaaral njaboot gi ci himma yitte ju kawe waaye nag bu leen yar ci am njàng kese ñu dem parce que nit ki mën na jàng kese dem ñibbiwaat nekkaat ci leen waaye li nekk ci yow nga jar ko nga yar ko ci def ko ci moom kooku boo noppee day mel ni day defaru defar ga nga xam ni moom la moom la moom lañ moom lañ bëgg loolu nag tax na sëriñ bi ñëw Daaru Salaam ngir euh, taxawu fa ngir ngir sànc fab dëkk ngir man faa yar yar goo nga xam ni moom lañu bëgg euh, mu nekk ci taalibe yi bi mu ñëwee nag tudde ko daaru salaam daaru salaam daaru salaam moom nag tur la woo xam ni day feeñaala ci ci barab bi tur bi nga xam ne moom la ko tuddee waaw tur woowu day wuyu borom tur woowu nag feeñaala na ci biir danañ ñëw ci kanam euh, sëriñ bi waxaal boppam ni li tax daaru salaam bi mu koy sanc la sanc ko ngir dabu loo xam ni moom la mag ñi daan dabu lu mel ni ñenn ñi dañ naan sanc ab dëkk ngir ni seen maam moo fa moo ko moomoon jóge na fa gannaaw bi dëkk ba gent ñu dem dabawaat ko sancaat ko nee na loolu taxul ma sanc dëkk bii Daaru Salaam sanc ma ko tamit ngir ni dafa neex a baye bari na ñoo xam ne loolu la nañ dem ci ñu dogal la foo xam ne kat neex naa baye nga ñëw bay fa soo fa bayee mbay ma dina nangu comme ni ñu ko xamee ci jamono yi léegi sanc ko tamit nee na ngir fu ñuy sàmmee nga xam ne ab sàmmukaay la boo xam ni nit ñi dañ faa soxlaa sàmmee ngir na seenu jur mën faa lekk waaye nee na dama koo sañc rek ngir jaamu yàlla subhaanahu wa taala waaw delluwaat dëkk bi sanc ko rek ngir jaamu yàlla ak tànn goo xam ne suñu borom moo ko tànnal kon gis nañ ni sëriñ bi sanc gi mu sanc Daaru Salaam leneen lenn na lenn taxul ko lu dul jaamu yàlla ak yar ndax moom moo ko waxal boppam bind ko bàyyi ko ci bu ñu demee ci beneen xasida bu ñuy tuddee doaawul kabir doaawul kabir sëñ bi wax na fa wax joo xam siiw joo xam ne nii euh, wax na ni suñu borom ci boppam moo ko wommat ba indi ko ci suuf si waaw allahuma innaka xutta simaami moo ma wommat ba ma ñëw ci suuf soo xam ni moom ma ko tànnalal boppam moom sëriñ moom moom suñu borom ma tabax fa ñaari kër nag ñaari këram tudd leen Touba ak Daaru Salaam kon day mel ne Touba ak Darou Salaam jenn suuf la benn place pàkk la boo xam ni suñ borom moo ko ko wan mu tabax fi ñaari kër comme niñ ko miinee gisee léegi nit ñi léeg-léeg ñu am benn dëkk ñu am ñaari kër loo lu ko ëpp sax dañ koy am sëñ bi bi mu ñëwee fii suuf si seen suuf la soo xam suñu borom moo ko tegtal mu ñëw am fa ñaari tabax fa ñaari ñaari dëkkuwaay benn mu tudde ko Touba benn mu dëkk ko Darou Salaam mu njëkkee nag njëkkee suuf si ñu njëkkee mu njëkk tabax kër gi ñu tudde Darou Salaam door faa jóge nag door dem ci eh, geneen kër gi gi ñu tuddee Touba. nee na nag li tax mu mu mu indi ma fii nag ma tabax fi ñaari ko li aabuduka li aabuduka fiihima bil imaan wal islaam wal ihsaan waaw ngir ma jaamu la fi xam day tege ci ñett imaan islaam gëm yàlla ak ànd ak lislaam ak rafetal. waa xam ni mooy ponk yi nga xam ni mooy ponk diine ñett yooyu nee na moo tax ma ma ma ñëw sanc fii ci ndigalul suñu borom subhaanahu wa kon loolu gis nañ ni sëriñ bi tànn gi mu ñëw ci Daaru Salaam donte nag bëggoon amoon na bëgg bi ndax fa nekkoon xam na waaye suñu borom moo ko jox ndigal mu ñëw mu jógee foofa ñëw fi def def fi ak këram tabax fi kër di fa jaamu yàlla ak di fa yar taalibe yi njaboot gi nga xam ne moom nekk léegi nag nee na nag ma may ñaan yàlla nag ci mbaaxam mu def ko nag dëkk bii ci dara yonent sallallahu alayhi wasallam muy dëkk boo xam ni ah, dëkk bu mucc la ci lépp loo xam ne mën na ko gàllankoor te mu wuyu tamit tuuram woo ne moom lañ ko tuddee leen te mooy Daaru Salaam ak euh, kërug jàmm loolu sëriñ bi loolu moo ko taxoon a jóge Mbàkke Bawal ginnaaw bi mu jógee Mbàkke Kajoor fa génne àdduna ñëwaat Mbàkke Bawal ñëwaa euh, sañ si Daaru Salaam gi ngir ci ngir mën a fa muy féexe man faa yu wéetal suñu borom man faa tamit amu yar ak jaxasoo te ku ne xam na ne jamono léegi yar bu gën a balaa gën a yomb dëgg-dëgg muy nekk balaa boo xam ne dafa wéet place bu wér boo xam ne yow ñi nga yar yaak ñoom rek na ndax jamono ji yi fakastalu bari na lool ngir nga bëgg def si njaboot gi nag yar leen yar bi nga bëgg faaw nga andil leen ci soo xamee nii day wéet bu wéetee nag ci ngay mën a def li nga xam ne ci ndax ay àndandoo ak ay waa day waalante ay jikko yoo xam ne nii yi bëgg ci nit ki moo def ko day jafe ci nga def ko ci loolu nag taxoon na señ bi ñëw Daaru Salaam gi ngir jaa ngir ah, yar ak jaamu yàlla mu sañ ci dëkk bi mu nekk fi nag ñaari at sëñ bi mu fi ñëwee nekk na fi ñaari at bi mu fekkee nekkee ñaari at ci la yunaaf bi ci la jóge dem tubaa la nga xam nag mooy ñaareelu pàkk bi ñaareelu kër gi nga xam ni suñu borom wan na ko mooy tubaa fii ci Darou Salaam ci la ko ko wane ndax boobu jógee na Màkke mi ngi woon Darou Salaam gi ci ay xalwaata ak wér gu muy wéetal suñu borom ak te na mu bëgg woon dëkk bi nekkoon tax na suñu borom wan ko beneen pàkk beneen barab boo xam ni mën na faa amee comme ni mu am ci Darou Salaam moom gis ko tax muy génn lu baree bari nekk ci àll bi di wër ba gis place boobu te waaye nag suñu borom fii la ko ko wane woon ci Darou Salaam ñu ko am na beneen pàkk boo xam ne soriwu dara boo xam ne Daaru Salaam Touba Touba la tudd mu dem fa euh, jóge fa kon ñaari at am fii ci Daaru Salaam dem Touba bi muy jógee Daaru Salaam nag dafay bàyyi woon kenn ko ci njaboot gi koo xamee nii sëriñ bi defar na ko ci diggante bi mu fi nekkee ak bi mu nekk Mbàkke defar na ko ba mu mën yor ab dëkk mooy maam si Anta te boobu maam si Anta ci saayir euh, taxul mu nekk mag lool waaw na ñaar fukki ak juróom du ko du ko weesu ko matee sax loolu mu joxe ko dëkk bi ak ñi mu fi nekkoon ci ay taalibe lu man la toll na juróom-ñaar juróom ñeent fukk ak juróom-ñeent comme niñ ko niñ koy nettalee ci ay murit yoo xam ne maam si Anta moo des ñoom ci dëkk bi waaye taxul na sañ bi dellu na gam dellu Touba sanc ko taxul mbayi dara Darou Salaam jamono yi nekk mi ngi koy nemmikuwaat mi ngi koy waat xel di ko fonkaat di ko bind ci ay xasidaam di ci di ko tàgg di ci wax ngëneel yoo xam ni am na ci dëkk bi donte mi ngi Touba jógee fi Darou Salaam dem foofu noonu kon laal euh, bu ñu gisee li tax sëñ Tuubaa sañ ci Daaru Salaam mooy ndigalul suñu borom la ci am ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala la ci am ngir lan ngir mën a yar ja yar njaboot gi ak jaamu ca di fi mën a jaamoo yàlla fu wéet foo xam mën na fee jaamoo yàlla euh, ci ay mu ay munaajaatam ay dayaale yu muy dayaale ak sama ak gu muy istixaaram ci la ko suñu borom tànnale dëkk bii mu wax ni naajaytuhu wa huwa alxafiisu wassalaam waxat daani ila daari salaam waaye ma dayaale suñu borom muy boroom jàmm mu wax ma ni ma man ngaa mu woo ma dem Daaru Salaam kon kon ndigal la yàlla ci am daani ila daani ila daari salaami lati biha unaajihi bi sikri lati tayyabal xalba moom yàlla ko woo ci dëkk bi nga xam ni mooy Daaru Salaam kon yooyu mbindum suñ tubaab mu mbind na moo moo wane ni lii moo ko taxam mu sañ ci dëkk bi di Daaru Salaam donte dëkk ba nga xam ne fi la waajuram nekkoon mooy Mbàkke Bawal waaw am ay jagle yu baax baree baree bare suñ Mamour Diarra feeñ fa ay ngelaw yu bare waaye nag ngir mën a ja wéet ngir man a defar yar moo taxoon mu indi daaru suñ borom tànnal ko seneen suuf tuddee ko Daaru Salaam muy suuf si nga xam ni moom la njëkk moom moomal boppam dëkk bii di comme ni ñu ko waxee ginnaaw dëkkub jàng la ak yar ak jaamu yàlla suñ borom suñ Tuubaa bind na fe ni rabbi biha minal wara maa laa yoat yaa xayra man rabba wa xayra man waat maa ngi lay ñaan dëkk bii ma yar fi njaboot goo xam ni kenn du xam nu toll waaw yar boo xam ne daal yar bu yaatu la ci dëkk bii nga xam ne moom nga ma tànnal te mooy daaru daaru salaam kon loolu wan waneen na ni sëñ bi moom dëkk bi yara taxoon mu mu samp ko ak jaamu yàlla bokk na ci li wanante ne jaamu yàlla tamit ci la woon mooy sa euh, sëriñ Basiru mm, radiyallahu anhu nga xam ne bëkk lu bare bare ci histoire sëriñ Tuubaa siira moom bind na ci lu baree bare minal baalu xadim te boo xam ne dajoo tëkk dundu suñ bi nettali na ci meloon Balla Xadim ne sëñ bi dafa wax ni li tax mu gënal ko Daaru Salaam ak Touba gënal ko yeneen dëkk yu dul moom nee na da koo sanc ngir jaamu yàlla. da sañ sanc ngir yar ak jaamu yàlla loolu sëñ nettali na ko. moo taxoon mu gënal ko beneen dëkk bu dul moom. donte nag sëñ bi amaan na yeneen dëkk kon loolu moo wax ne kon jaamu yàlla ak yar moo taxoon loolu moom. waaye nag dëkk bi nekk dëkk boo xam ni dëkkub jàmm lay nekk. dëkkub jàmm ndax tur bi day wuuru day wuy siwaale Euh, dëkk bi euh, suñ bi moo moo ñaanal boppam ci dëkk bi mu nekk dëkkub jàmm ijaal salaamatan taduumu yaa salaam li yawali ayaan fii daari salaam kon yaa ngi maa ngi lay ñaan yow suñu borom nga defal ma jàmm gu sax ci dëkk bii di daaru salaam wajjih liya wajjih liya salaama fii daari salaam wa asa amin ko yaa salaam kon ñaan na ma dëkk bi nekk dëkkub jàmm noonu la binde ci Matlabul Fawzayni ci laak téere ci Touba wan ni Tuubaa bëgg tubaa nekk comme turam yi turam yi mu ko wutal nekk comme turam moo ci àjjana comme Tuubaa benn ca àjjana nam nekkee mu nekk dëkk bi di Tuubaa mel noonu noonu la doon la nekk ci la def ci Daaru Salaam bu mu nee bi mu naan waccaxal ilaahi maskani Tuubaa abat mislas mihe bi jaayi xayri man abat maa ngi lay ñaan sama dëkk bii di Tuubaa nga def ko mu mel ni euh, euh, turam wi euh, ca Tuubaa ca aljana loolu mooy waral kon sëñ Tuubaa rab bi muy sanc dëkk bi da koo sancoon ngir jàmmu ne sax fi moo tax daanaka boo léegi loolu lañuy ñuy nemmiku ci dëkk bi dëkkub jàmm la dëkkub dal waaye benn yëngatu goo xam ne yëngatu bu indi fitna wala bu ñu leen du dégg man amoo fi wala boo xam ne day indi fitna wala leen ndax lan asalaam gi nga xam ne moom la ko tuddee te mooy jàmm euh, dëkk bi tamit dëkk la boo xam tamit suñ bi da koo sanc ngir yeesal sunna ngir yeesal sunna am na fu ko waxee fu mu naan lahu taala rujuwai min idaaya ila daari salaam allati tubna bi tajdiid waaw waa ngi lay ñaan suñ borom ba mu nekkee ca tukki ba nga delloo siwaat ma daaru salaam ga nga xam ne dama ko tabax ngir yeesal sunna daaru salaam allati tubna bi tajdiid tajdiid mooy yeesal sunna ndax sëñ Tuubaa bokk na ci méto maison bi ko tax mooy yeesalaat sunna si yonent bi ndax nee na bi mu ñëwee daa fekk na mel ni kër gu ràpp kër goo xam ni dañ ko dëkkoon waaye boo ñëwee da nga xam ne ay jeexit yoo nii kër la woon rek waaye lay màndargal kër ga nekkatu fa nee na nag mu ñëw ne dina ko dina dinaa ko yasrat li Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xoraawa inni ahmadu kon moom diinu siwa islaamuhu laa yuhamadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon tajdiid yu yeesal sunna bokk na bokk na ci tamit dëkk bii Daaru Salaam li tax mu sanc ko mooy ñu yeesalaat sunna si waaw seesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkaat pàkk boo xam ne pàkkub jaamu yàlla ak yar ñu fiy dund sunna di fiy dund lislaam ju mat sëkk yoo xam ne ànd ko taalibe kon loolu sëriñ bi gis nañ ne jàppale na ko mu nekk dëgg kon loolu ci gàttal mooy bu tax sëñ bi sanc dëkk bii Daaru Salaam ak Touba mooy dëkk boo xam ne dafay jaamu yàlla ak dafa yar njaboot gi bu dee ci ay jagleem nag bari na loolu moom waaw Daaru Salaam moom ci ay jagleem moom bari na lool lool loo xam ni yenn ci sëriñ bi boobam ci lañ ko mën a jële yenn yi tamit ci histoire moo wane ni dëkk bii sëñ bi tegoon na ko foo xam ne tegu ko feneen beneen dëkk ci loolu te yeneen dëkk yu mel ni yu dul moom rek amul lu ko jagle yu toll noonu bu ñu doon tënk ci jagle yi nga xam ne dëkk bi am na ko te yeneen dëkk amu ko bañ naan dëkk bi sëñ Tuubaa njëkk moomoon boppam mooy Daaru Salaam te loolu ak jagle gu rëy la 1886 dëkk bi njëkk sancal moom ci moom moom ci wax nañ ko léegi mooy dëkk bi Daaru Salaam loolu ak jagle la goo xam ni geneen dëkk boo xam ni bu dul moom amu ko bokk na ci ay jagle jagleem ci dëkk bii di Daaru Salaam mooy dëkk la boo xam ni Serigne Touba ci tukki bi bi mu nekkee ci tukki ba ba ba ñibbisiwaat mm-hmm. euh, euh, li ma li dëkk bi nga xam ne moom la tànnoon pour ñi dellu siwaat fi nga xam ne moom la jàpp ni mooy dëkk bi nga xam ne su ma fa agsee rek ñibbisi naa mm-hmm. mooy Daaru Salaam mm-hmm. donte nag ci histoire nett naan jaar na ci dëkk yu bari ndax jamono jooju moo laajoon ab tukki gaay wul noonu ab tukki gaa yi wut noonu faaw ngay jaar di jàll di jàll waaye jiit jëkk taxoon a jóg ak fa mu xam ne fa la waroon wàcc ay bagages nga xam ne su accès rek jàpp na ne ñibbisi na mooy Daaru Salaam donte nag daar na dëkk yu bare bare bare yoo xam ni histoire nettali na ko waaye jubaa ndax dañoo wax ni sëriñ bi bi mu ñëwee bi muy ñibbisi ba am jàpp jotee am ndigalu daa war a ñibbisi tànn loolu na suñu borom mu war ko ni ko mën ngaa dellu Daaru Salaam nga daan du def dara lu dul la cee am ndigalul suñu borom suñu mu ubbee kaayam borom yamal ko ci wallaahu yaddu ila Daaru mu xam ne kon Daaru Salaam lay dem waaye nag tukki jamono boobu bokkut ak jëbu jamono tukki bi léegi xam ne mën ngaa jógee fii ñëw rek daal agsi léegi ci ay barab jaar jaar yooyu waaye jubluwaayam moom mooy daa bëggoon ñëw bisi ñëw Daaru Salaam donc ci loo xam ne maam si ànd sax fekk see na ko foofu ba waxtaan ceeg moom bëggoon mu dellu si yaa ne maam si ànd li nekk suñ nekk ci tukki ba lépp noppaluwul ngir lan ngir bëgg suñu Tuubaa dellu siwaat ndax ñàkk dellu siwaat ak suñu Tuubaa lam mën a jur ëpp naa ëpp naa ëpp na muy am. waaw gis na ni loolu ñenn ñi ñu toogoon di di jàpp ni suñ bi da doon jéem a nangam ak nangam ba tax na far nañ yóbbu ko sànq nañ ko nangam ñooñu war nañ leen a gàcceel moom. sëñ bi da da da dellusiwaat te bu ko tubaab bi jéemoon ci moom tamit ba mën ca dara. bu boobaa ñen ñi nit ñi mën nañ ko weddi wala ñenn ñi mën nañu weddi te buñ ko weddee man musiba mën na leen dal. du baax ci ñoom moo tax maam si ànd sonn na lool ci sëñ bi fekke na ko gamoo dem na fu nekk ngir bëgg sëñ bi dellusiwaat. ci dara sama waaye nag mu xamal ko ne ko nag dinaa ñëwaat waaye nag bu ñu bisee Daaru Salaam la ñëwaat moo tax maam si Anta waajal ko fa waaj te mhm. sant yàlla mhm. naam alhamdulilah ala xudumi xaasid daar waaq nga xam ni kon ñibbisi gi mu ñu saatu rek ak cant yàlla mi doon na jaar na ci ay barab yu bari ah. mm. loolu moom mm, gis nañ ak jagle la goo xam ni te ñu ko bare ñu ko bëggoon nag bari na mm. ah, ñu bëggoon sëñ Tuubaa bi mu jógee ci tukki ba juróom-ñetti at maa ngi tuuti sërite bi mu indi ko indi ko wàcc seen ci wàccee ko ci ñoom ñoom bare woon na lool waaye nag sëñ tubaa daa Daaru Salaam moo am jagle gu toll ni sëñ Tuubaa ñëwal fi boppam wàcce fi sore ci ma bokk na ci ay jagleem sëñ Tamsiir ba léegi Daaru Salaam mooy benn dëkk bi ñu nettali ci histoire ni sëñ Tuubaa daa na fi noddal boppam nga xam ne moom mooy jóg nodd bu waxtu julli jotee mooy bi muy door a sañ daam ñaari at nekk na ko Daaru Salaam jóge Tuubaa Mbàkke ñëw fi su masa waxtu julli masaana jot day nodd moom ci boppam nit ñi ñëw ñuy julli waaw moom wax nañ ne sax daan na ci dolli bu ñu noddee ñu ak sikkar soo xam dañ koy sikkar di tudd yàlla ba julli jow taxawal ñu daa taxawal te nee nañ sëñ bi sax daana bokk ci sikkar soosu moom nga xam ne ñu ngi koy barkeeloo léegi ba ci jamono ma jamonoy koor gi wala ñu ngi koy def noonu loolu histoire wane ni sëñ Tuubaa Daaru Salaam la ko mos a defee kon loolu mooy wane ni kon dëkk bi fonk na ko jox na ko yitte ndax lim fi def ci ay jaamu yàlla ak door a jox ko ko kuy wóotu kuy noddu bu julli jotee mu génn ñëw julli waaw maanaam suñu musaaka dox naan bu ñu masaana sikkar murid yi bu ñu masaana nodd murid yi sikkar ba sii di anta génn ñu naat yi kàbbar suñ moom si anta bi fi fi nekkee tamit ginnaaw bam da koo continué di ko def loolu kon gis nañ ni kon ak jagle la koo xam ne suñ tubaa may na ko def na ko ci Daaru Salaam dëkk bii ni te dëkk yeneen yi man na ni amewu ko noonu bokk na ci ay jagleem ak ay ngëneelam moom Daaru Salaam mooy Serigne tubaa xalwatu bi mu njëkk a dugg xalwatu suñ borom wan ko pàkk biir tubaa Daaru Salaam la ko duggee waaw nekkoon na Mbàkke ba ñëw fa suñ Touba suñ borom tànnal ko suuf su mu war a tabax ñaari kër waaye bi mu ñëwee ba Daaru Salaam nag ci lañ ko dugg xalwatu boo xam ne suñ borom moo ko wan pàkk beeru tubaa wax nañ mag ñi nee nañ bi suñ Touba nekkee daana toog ba yàgg loo xam ne kenn du ko gis day génn nekk ci àll bi rek ba léeg-léeg sax dañuy di ko di ko jéem a neemee ko ji xool donte xam ba nga xam ci lu mu nekk ba ko laaj ay sàmm yu ne ci dëkk bi ñu leen di loo xam ni suñ demee dañuy xam ni moom la ngir lan ngir lan toog pàkk xam ni gis na ko te mooy ñaareelu pàkk bi war a tabax ci dëkk bi ci suuf moom la waroon a war te mooy Touba waaw te waaye nag xolbootu boobu mi ko gisee euh, Daaru Salaam yi wala sama maam suñu Aliou Thiam toog naa mu koy nettali nee na moo ko déggee ci suñ fàllu moo xam ne booba màggalu Touba nee na suñ Touba suñu fàllu di wax ci rajo jumaa yi nee na mu toog ci benn pot lamp di déglu nee na mu dégg suñu fàllu di wax naan xalwatu bi suñu tubaa njëkk a dugg de mu wan ko pàkkob tubaa daaru salaam la ko duggee loolu suñ maam suñu maam nettali na ko ma koy dégg kon loolu day wane ni kon dëkk bi am na ay jagle yu bare bare ñun ñi fi nekk war nañ koo xam bu baax a baax bokk na ci importance dëkk bi ak jagle yi ak ngëneel yi mooy suñ tubaa ba mu nekkee ca tukki ba di liggéeyal suñu borom ci ndigalul suñu borom di tàggu yoon def salaasam bagage yam fa yoroon dafa tàgg suñu borom di bind di sa tàgg suñu borom di julli ci yoon bi salaam lépp loo xam ne dana ko yor bagage dañ sëñ naa wax sëñ dañ naa wax naan sëñ bi daaw ko bàyyee da koy dajale wax nañ ne maam si Anta ñëwee jógee Gabon ñu jógee euh, Sénégal ñu fekk fekk Gabon ba mu demee ba ñibbi sëñ bi da ko jox bagage yooyu <clears throat> ni ko boo demee Darou Salaam nga yóbbaale ma ko fa nga xam ni fa laa war a wàcc bu ma ñëwee néeg boobu nag ma ko fa gas ko solo ko fa loolu man tamit loolu maa ngi ko déggee ci sëñ Mour Mamoun Niang nga xam lu bare ci bind na ci tër siira sax ci suñ tubaa mu mu mu nettali loolu kenn màggal goo xam demoon nañ fa màggal Daaru di ko laaj mu nettali lu mel nii ne suñ tubaa ba fa yoroon da koo joxaat suñ maam si Anta ni ko boo demee Daaru Salaam fa war a dal néeg ba nga xam ne la war a wàcc dinañ ko gas suul ko fa te nee nañ mooy fi nga xam ne fi la barab maam si Anta nekk lay nga xam ne fi la suñ mu nekkoon bu maam si Anta wàccee ñu daal ko fay mu xamee na ni bu ñëwee fi lay wàcce kon yooyu loolu li muy wane mooy solo su solo su ak màggaayu dëkk bi ak fonkeel goo xam ne sëñ bi fonk nag dem na ba ca tukki ba Gabon te lépp xelam mi ngi ci Daaru Salaam waaw nga xam ne daal génn na dëkk bi waaye taxul mu xelam di ci génn xelam toujours mi ngi ci rek ak soppi goo xam ne sopp na ko dëkk bi di Daaru Salaam euh, bokk na ci ay jagleelam ba tey ci dëkk bi di Daaru Salaam mooy dëkk la boo xam ni kenn mënut a nettali histoire murit mm-hmm. murit gi ba mat te tuddoo Daaru waaw Daaru Salaam moom mënoo nettali mu murit te li nga nettali nekk loo xam ne nii euh, lu jaadu lu tegee la ci xam-xam te jaaroo tuddoo Daaru Salaam parce que fondement da yoon wi day Daaru Salaam waaw xam mu tàmbalee woote rek woote bu si suñu borom déel ko te ko fii ci daaru Daaru Salaam kon loolu day wane importance fu dëkk bi ak dafa ak fonk ak dëkk bi waay woo xam ne am na ko loo tax daanaka euh, alxurriya waaw mhm. liberté waa fii la ko doon amee fii la ko waaw ba mu nekkee fee dafa xawoon tënku ndax fu nekk foo xam ne say kilifa dafa bari sa waajur nekk na fa wala say waajur yu say mbokk magi waajur wala say rakk waajur nga xam ne ñooñu ci wëpp ay lañ ci yow bala am ak ubbiku gu yaatu li nga bëgg def lépp nga def ko am foo xam ne yaa ko moom sa bopp moom xorriya googu ngay wax naan ak ubbi googu moom liberté googu Daaru Salaam gii la ko la ko la ko la la ko amee loolu kon ay jagle la goo xam ne dëkk bi am na ko mu amaat yeneen jagle yoo xam ni siiw na lool mooy ñaari leer suñu Touba yi nga xam ne ñoom la njëkk a gis wala ñoom ñu mag ci bokk nañ ñu mag ci ak njabootam muy ma muy suñu Mourou Moustapha ak suñu Fallou fii lañ gane àdduna loolu tamit jagleel la nga xam ne wàccuwaay la nga xam ñoom ñaar ñëpp ku ne xam na seen wàccuwaay ak seen taxawaay ci wootab sëriñ bi ak ci ci ci diina ji ak ci murid yi nga xam ne liggéey bu rëy liggéey nañ ko déggalee nañ ko fi ginnaaw sëñ ginnaaw sëriñ bi ñoom fii Daaru fi fii lañ feeñe jamono loolu tamit ak jagleel la koo xam ni am nañ ko ba ñoom sax suñ mu fàllu sax wax nañ ni moom saa su mis boobu mosaan ñëw dañëwaat Daaru Salaam mooy màggal Kazu Rajab gi ngir la di fàttali ko loola nga xam ni moo am loolu la tamit ak jagle la ndax ñaar ñu toll noonu kat fu ñu feeñee jamono loolu lu bokk ci ay jagleem tamit ci yi ma mooy maam euh, maam Cheikh nañ ni ngëreelu fii li ci dëkk bi Daaru Salaam fi la ngërëm nga xam ne moom nekkoon na Daaru Salaam dafay taar tarbiya ci sëriñ bi waaye bi nga koy sëñ bi gërëm nag nee nañ ci dëkk bi la ko gërëme histoire mm-hmm. nettali na nettali na lu mel noonu mm-hmm. ko tax ñooñu tamit kooku tamit ko ne xam na ne màgg la ci yoon wi mm-hmm. ku am wàccuwaay la ci liggéey lu bare bari ci lay la koo xam yóbbu fu yoon wi fu bare soree soree wari ci ak ak la la yoon wi laajoon jamono woo bu nga amee ngërëm nag wax nañ ne sëñ bi mu koy gërëm fii ci Daaru Salaam lañ ko lañ ko amee woon ngërëm loolu tamit ay ngëneel la kon ci ngëneel yi ak ci jagle yi mooy Daaru Salaam fii lañ denc euh, Maam Cheikh Anta Maam Cheikh Anta moom nag <clears throat> mooy koo xam ni Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu cër bi mu ko joxoon néewaane ko mu ko joxoon ak bàyyi xel gi mu ko bàyyi woon xel ci ci ci ci ci moom nga xam ne ñu bokk lépp daanaka taw tax mu sëñ Maam Cheikh Anta wàcce bàyyee wàccee boppam lépp mu jël ko jël euh, jënd ko ak taalibe sëñ bi tamit xam na loolu waaye taxoon jox fonkoon na ko lool joxoon ko yitte lool bàyyi woon ko xel lool tamit ci ak nekkam ba tax na dëkk bi ñu njëkk moom boobu moom la ko moom la ko rafaatale woon jox ko mu nekk mu nekk euh, jëwriñ ñi nekk fa di fa yare comme na fa suñ tubaa daan yare bi mu fi nekkee noonu mu doy loo ko lool loolu kooku noonu tamit koo xam ne dañ laa teel a jox responsabilité bu toll noonu ci ci sag dund te booba nekk goo mag ak fa ma la sëñ bi euh, jigéel gum la jigéelee boppam kooku tamit bu génnee àdduna ñu denc ko ci dëkk bi loolu tamit jagleel dëkk bi la waaw ndax mënoon naa amee feneen mënoon naa ne waaye loolu dégleg dëkk bii ak dëgg liggéey bi mu fi liggéey ak sëñ bi doon fonk mu dëkk bi tax na bi mu wàccee fii lañ ko ak njabootam gépp gi nga xam ne ci ginnaawam tànk yooyu mu jaaroon ci lañ jaar ñoom ñëpp tamit ñu ngi fii dëkk bi ñooñu nga xam tamit sëñ bi bokk na ci li sëñ bi euh, suñu borom rusee dëkk bi ñoom ci lañ bokk waaw ñoom kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñu ngi ci dëkk bi moo tax daanaka dëkk jàmmu jàmm la sëñ bi ñaan na waaye ay kilifa nekk nañ fi yoo xam tamit suñu borom ruus na leen lool lool moo tax dëkk bi nii rek la war a la war a man a war a mën a mel. Hmm. bokk na ci ay dëkk dëkkam mooy ci sëñ bi koo xam ne sëñ bi da koo doyloon ba def ko imaam waaw sëñ Tuubaa ni màgge comme doyloo ba ñëw def la imaam kooku mooy kooku kooku kooku kilifa ah? sëñ comme def kii imaam xam ni kii mat na imaam mu ñëw la def la imaam ak ràññeeku lool ah? ak man alxuraan lool digg déy na lool ah? ràññeeku lool ci jaamu yàlla tamit. xam nga ñett yooyu da nga koy boole da ngay mën alxuraan lool man dégg dina lool ràññee ko ci jaamu yàlla yooyu yëpp daje woon na ci ñaafe ñu gànn waaw ku bokk mooy loolu ñuy wax rek am kon moom daa ngeen ni kon dégg diine ga ak ak euh, xam-xam ba ak alxuraan ñu man dexaja ak fonk ja mën a jaamu yàlla ga tax na Sëñ Tuubaa euh, defoon ko muy imaam ca njaareem moom nag ba mu génnee àdduna fi muy génn àdduna ci Daaru Salaam gi la génn àdduna ah suuf si nga xam ne suñu tubaab moom la njëkk ba moom fonk ko loolu la ñaan fi ay ñaan yu baree bari nekkal fi boppam ay am ñaari at di fi julli di fi noddal boppam suuf soosu moom soosu màgg la suuf soosu génn fi àdduna yëmut ak génne àdduna feneen suuf moom tamit ci suuf soosu fi la moom siñ siñ mënoo ah, siñaa fee génn àdduna kon yooyu ci suñu tam si ci tënk ay jagle la yoo xam ni dëkk bii di Daaru Salaam am na ko ci ay ci ay ay la mu bokkaat ci <clears throat> loo xam tamit wàccuwaay woo xam ni dëkk bi am na ko ci sëriñ bi waaw si li ñu wax lépp bu kee kuy déglu la di dégg war naa xam ni dëkk bii kat sëriñ bi bàyyi woon na ko xel ci liñ fi nettali lépp ci ak fi mu jaar moom ak lim fi nañu loolu wane na ne sëriñ Tuubaa daa bàyyi woon xal dëkk bi joxoon ko wàccuwaay wu rëy rëy euh, feeñ na ci ay mbindam feeñ na ci ay waxam feeñ na ci lu baree bare ci ay déyaale gu muy déyaale suñu borom ci di tudd dëkk bii di Daaru Salaam ak di ko di ñaan dellu siwaat fi bi mu fi jógee ak di ñaan tam mu defal ko fi dëkk li nga xam ne mooy mooy jàmm day mel ni day tolloog wàccuwaayu bi ni yonent bi salaa suñ yonent bi salaa salaam defoon diggante Makka ak Touba day mel ni mooy nekk diggante tubaa ak Daaru Salaam ci sëñ bi ñaar dëkk la yoo xam ni dalee na fonkon lool bi ñu koy jëlee tubaa di ko yóbbu la yonent bi salaa salaam waxoon ba ñu koy jëlee Makka di ko génne muy gàddaay dem ba génn Makka daal di wëlbatiwaat wala nag jàkkawaat jàkkawaat màkka ni ko yow ay dëkk bi nga xam ne yaa ma gënal ci dëkk yëpp suñ ma génnewul woon du ma ko génn waaye sëñ bi tamit bi muy génn Tuubaa su dul woon li mu liggéeyal suñu borom ak liggéey bi nga xam ne su am na garaat bi mu bëgg ak li nga xam ne moom bëgg a liggéeyal yonent kon du ko génn waaye loolu mooy mottali li nga xam ne moom la waroon am te mënutoon a ñàkk génn ko mënut a waaye su dul woon loolu de ñaari dëkk yi mën naa ne sëñ bi mën na ko bañ a génn ñaari dëkk yi di Tuubaa ak moom ndax fonk goo xam ne fonkoon na leen noonu dañuy gis muy deyaale ak suñu borom di ko ñaan mu delloo siwaat ko Daaru Salaam ak Touba ci euh, tukki bi nga xam ne tukki bi yàgg na lool ci loxol tubaab bi ci nattu yu métti yoo xam ne daj na ko fa ci biir nattu bépp loolu lépp muñ ko waaye lépp dañuy gis ni muy buy deyaale suñu borom day bëgg mu delloo siwaat ko Touba ak Daaru Salaam lii jud bi aw bati ilaa Daaru duniyaa wa uxraa wali Touba bi salaam ñaan nga delloo siwaat mu Daaru Salaam ak tubaa kon day mel ni kon dëkk la boo xam ne nit ki nekk ci am jotug mën a bind loolu mi bind lépp te saa suy bind nag Touba ak Darou Salaam du ko fàtte moom da leen di sóoraale woon donte ne na tuddaat yeneen dëkk nag waaye Darou Salaam ak Touba moom ñaare sax daanaka da leen di boole ñaare su da leen di lëkkale Touba ak Darou Salaam mooy li ñu wax rek genn sànn suuf la soo xam ne dafa am ñaari kër rek mooy Touba ak Darou Salaam waxaan na tamit saaltuhu bil Mustafa xayril anam taajila awbati ila Darou Salaam dañ koy ñaan moom suñu borom ci daraja yu Moustapha yonent bi salaam sam sangam ba mu gaaw maa delloo waa Darou kon yooyu uh, wàccuwaay la woo xam ni sëñ bi bàyyi woon na xol xel ci moom Darou Salaam doon na ko doon ci ñaan lu bare ba doon nañ uh, mébal lool di delluwaa sawaat mu dëkk bii bu dellu sawaatee mu nekk dëkk boo xam ni dëkk bu mbégte la ci jullit ñëpp rawatina nag murid yi daan ñaan su ma dellu sama dellu sawaat nekk tax ak murid yëpp nak nag tax ak tamit taalibe yëpp nekk tax ak jullit ñëpp icaal salaamatan taduumu yaa eh, icaal rujuuhi bokk icaal rujuuhi ilaa xawmi saadatana wal tak fii naa yow ma jameel xalxini xalxi niiraanam daan na ñaan mu nekkaat dëkk boo xam ne nii dellu si am nekk seenu texe te loolu tamit am na ci gis nañ dellu si gi texe gi yoonu yëpp la moom murid yu bare maanaam mu waxoon murid yi sax waaye jullit ñu baree bari texe seenu texe la wala seen ñàkk dellu si waatuk sëñ bi mënoon naa andi waaye dellusiwaat gi nag moom tax na mu nekk tax yoon wi tax ak njullit ñi mu yoon wi moom lahu taala rujuhi min adaya ila daari salaami lati tubna bi tajdid waaw maa ngi lay ñaan delluwaat Daaru Salaam bi nga xam dama ko saba tabaxoon ngir dama ko sancoon ngir yeesal sunna sallallahu alayhi wa sallam loolu sëñ mi ñaan na ko wàccuwaay boobu gis nañ ni dëkk bi am na ko daana ko dëkk bi tamit ci wàccuwaay boobu ak soppeel koo xam ne sëñ bi soppoon na ak wàccuwaay bu mu amoon ñaan suñu borom di ko sant mu nekk dëkk bi nekk dëkk boo xam ne sant euh, dafay sant suñu borom nawaytu yéene naa nawaytu sukrahu la daa daari salaam wa inda Touba bi jës bi jës bi jës min wa xilaam waaw xam ne daal tak sant ci daaru salaam ak Touba sant day indi li nga xam ne moom la sëñ bi digle woon bi mu ñëwee ci 18 safar ndax sëñ bi euh, digle woon ñu santale ko yàlla ci bi mu ñibbisee waaye daal digle ñu sant ko yàlla ci dem gi mu demoon parce que dem gi moo indi ñibbisi gi li mu am. moo tax bi muy dem dañ nañ ko sant yàlla génn gi mu génnoon dem liggéeyalu si suñu borom ba suñu borom gërëm ko ba dellusiwaat ko li mu am lépp mu am ko ci. mu ne woon bu bis boobu dellusee nañ ko ci sant yàlla. sant yàlla nag bokk na ci méthode bi ma waxoon nañ ko sante yàlla mooy lu nit waaye man a am ci berne. ci lu mën a tuur ci deret ci li gën a néew ci luñ mën a berneel ba ca la gën a kawe na ko ko def. ngir ñu santale ko santale ko ko santale ko yàlla. loolu la sëñ bi digle woon waaye nag mi ngi tànn bis bi mu génne woon fii dem nag liggéeyalu boromam waaw xarajtu yow ma sabti saamina afar saamina asar li xadmatil muxtaari fii saxri safar nga xam ne génn gi mu génnoon dem liggéeyali yonante yonante bi ci ndigalu suñu borom ba am ci loolu moom la na digal ñu sant ko ci moo tax moo tamit na nawaytu sukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaa bu gis min waxilam kon yooyu dañuy gis ne kon sëñ bi loolu ak wàccuwaay la wu mag woo xam ni amoon na ko fii ci ci daaru ci daaru ci daaru ci daaru salaam yooyu yooyu lañ tënkoon ci na ci ci li ñu waroon bëggoon ñu ñu fàttalante ci xam naa li may jeexale mooy may dénk yëpp ku dëkk ci daaru salaam képp koo xam ne dëkk na ci daaru salaam ma koy dénk mu bàyyiwaat xel bu baax dëkk bii daaru salaam te xam ne dëkk bii kat sëñ bi ba mu koy sanc da ko sancoon ngir jaamu yàlla ak yar jaamu yàlla yar ku fi nekk ku nekk loolu nga war a bàyyi xel lépp loo fi def li ko la ca gën mooy jaamu yàlla ak ak i teggin ànd na ko yar tàng mooy yar nag bu ñu ko waxee mooy jàng tey jëfe li nga jàng hmm, jàngal leen ñu xam seen diina xam xam xam xam seen àdduna naka doon tamit xam ak ab yar mooy lan ak murid ndax ab yarkat mooy mottali dëgg-dëgg am njàng ndax ñu ngi njàng moom yar taxul ñu njàng moom am solo kon la war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax dëkk bi ñu nekk ak jagle yi ñu am te xam ne dëkku bu jaamu yàlla ak yar ak jàmm lépp lu ñu mën a def tamit ba jàmm am fi war nañ ko mën a jéem a doxal ndax kat moom la si borom bëggoon ci dëkk bi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu waajaloon ngeen andi ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Cheikh Mbacke euh, am na solo lool te itam kawe na njor ci nii nga waxtaan wi ci ni sa ni suñ Tuubaa sancee dëkk bi asbaab yi ak itam ay jagleem ak i ngëneelam ak itam wàcc waaye ko suñ Sëñ waa joxoon ndax li ñuy fa di netti ne bi mu ñëwee di wax ne fu ngeen ma dégg dama faa jaar waaye fii laa jëm si woon moo ci tukki bi kon loolu jagle la ci Daaru Salaam waaye itam kam fi bàyyi woon muy Sëñ Gaawaan nga xam ne Sëñ Muloo Dagana nee na Sëñ Gaawaan bis bu yàlla sàkk dana rey ab ab lim ci ay gàtt bu fekkee gàtt yi matul sax dana ko mottalee bi jamalin aw jamaal giléem wala ay giléem kon loolu day wane ngëneel li Sëñ Tuubaa defoon ci Daaru Salaam waaye def def ko ci ki ko joxoon ndax koo xam ne lu yées ñaar fukki at ba la ca teg bëriwut jox la dëkk ak ñoo xam ne ñenn ñi sax ñëpp ñoo mag toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak yow muy téeméer nga nekk ñoom ba dëkk bi toll fi mu toll kon kooko yaafu yaafu sut ndax euh, bi may waxtaan di mu wàgg Sëñ Balla Faali Jeng mi am lool wàccuwaay ci màggal gi nee na suñu Balla Fall yi fii ci Darou Sam la jëbal sëñ Touba mu wàccee ko fee ca Touba waaw kon loolu itam ngëneel la loo xam ne bàyyi na ñoo xam ne ñi ñu bokk ci as-saabiquun al-awwaluun ci sëñ Touba fii lañ jëbaloo ci sëñ Touba ci Darou Salaam ak wàccu sa Ibrahima Fall amoon fii ak jagle lool kon dëkk bi dëkk bu am wàccuwaay la boo xam ne wàccuwaay mënut weesu dëkk bi la sëñ Touba njëkk am ci kaw suuf ngir moom boppam ci def li mu bëgg def ndax sëñ Tuubaa itte jukaay moo ko taxoon a jóg mooy yar nit ñi ba ba ba ba àgg ci seen borom subhaanahu wa la te yar boobu mënu ko ko amee fu fu fu yaatu moo tax mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol Daaru Salaam Touba ba Mbàkke Baari ndax li wax ci Mbàkke Baari bi mu ne ba gis tuuba tàmbalee xat jaxasoo gi bari te moom yar moo ko tax a jóg mu dem sanc Mbàkke Baari kon yar bi taxoon Sëñ Tuubaa doon sanc ay dëkkam moo taxoon mu sanc fii ci Daaru daaw Salaam am nag jagle goo xam ne kenn dootu ko ci fekk mooy moom la suñu doon njëkk a sanc loolu moom faat na kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy santaat baax a baax eh, ñaan yàlla suñ borom guddal saw fan mm-hmm. te wéral say te yokk xam-xam bi ci barke borom gaawaan di fàttaliwaat rek jotaay yi ñuy def mm-hmm. muy Assalaamy TV ak FM 99 point 0 mm-hmm. di jëm ci wàccaay màggal gi muy 18 safar 18 kàngam kon ñu ngi fii Daaru Salaam àndoon ak sëñ Cheikh Mbacke ñu ngi leen gëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaatu lasi fi kulli.